te daay fi mu nekk ñoom bëri na. bàyyi ma ñoom door bi dal na. mais Moussa Dioum bu toppee xeex xeex bi nii. dañuy xeex bëree gunu bëree gunu dafa mel ni dañoo nar a door kenn mu daanu. bàyyi ma ñoom jël nañ ko ña nga suuf ña nga ca suuf bañ nañu jóg nañu jàppante nañu. ña nga ca suuf jàppante nañu Moussa Dioum dengeñ na Moussa Dioum dengeñ na ku topp dóor yi fii ñu toll lay feeñ ku sonn ci dóor yi lay mu feeñ. jàpp na ci loxo bi mi ngi bëgg a wër Moussa Diouf bëgg naa wër Moussa Diouf daanu na Baye Mandione yoon daaneel na Moussa Diouf jël bu leer Ndione waay yëkkati nañu loxo bi ne woon na ma may sam ci gannaaw sam na am na wisu am na sugu sugu sugu ci diggante bu Baye Mandione consulté na juge yi moom Babacar ndeysaan 22h20 mooy 25 arbitre sifflé na ah toj na leen jiital gauche nga leewaat toñu ñoon jugal ko jigéen ñoon ko ci kaw alaaji gar ale wato ñu gañ jaañ gën a ba heure moo jot vingt deux heures mooy vingt cinq loolu di gëj nañ koo wax si làmb jaañ ndeysaan ndax ma sëñ koo wax ah ko gaari nañu ko for gar ndax ma sëñ koo wax déedéet fii tey la ma sa xew ndeysaan la mu nocturne yàlla yàgg ci sax muy ñetteel bu ñu ma sa fekk da nga leewaatoo ñu ndeysaan ñu ngi leew too di demee rek waaye ma ñoon Modou Lo jox na ginnaaw de couverte Baye Mandione de euh, jox euh, couverte ginnaaw. Baye Mandione xarit bu kenn déclenché gul. ndeysaan ñoom ñaar ñi nga leewatoo rek. Modou Lo jiital gauche Baye Mandione jiital gauche. nga leewatoo. ngay demee wet Baye Mandione dafa mel ne dafa fermé angle bi gar bi. waaw ah, dafa fermé angle bi àll bi. Malal ci ñor. Malal. waaw ñoom ñaar ñi ngi leewtoo. ku ne di xool sama lu mu indi. Baye Mandione mi ngi dox jëm ci kaw Modou Lo. waaye moo doomu ngi ni tekk di ko déglu. da ko tëj ba tey ñu daje ñoom ñaar. da ko fermé. da ko da ko fermé waaye góor mooy léegi waaye demul. dafa xob dafa xob. sa xob ak yéen bokkul. dafa xob. attention ma ñor lancé na léegi. waaye ma na léegi. ma ñor lancé na waaye dem attention Modou Lo léegi Modou Lo tërëf na Modou Lo jël na bàyyi ma ñëw Modou Lo tërëf na léegi. laa ilaaha illallah. ma jëm fu mu tërëf bàyyi ma ñëw Modou Lo. bàyyi ma jox na koy dóor. Modou Lo koy jéem a bët. Modou Lo koy jéem a bët. moom koy jéem a bët. bàyyi ma ñëw crochet na ko téye. laa ilaaha illallah. Modou Lo koy jéem a bët. pour def ko bàyyi ma doon Modou Lo. ak na téere ko tex léegi bàyyi ma doon dégg ko. da nga roofoo ñoom ñaar. da nga roofoo ñoom ñaar. saat baa ngi ne tekk ndeysaan ñoom ñaar dégg ñante stade baa ngi def tek ah xaye gay ni doy na war hey tek tek daw na yax des gaañ ay waay Modou Lo nit ñaa ngay daanu ba garmi ah nit ñaa xam te lamb ji jeexagul garmi xale yaa ngay xam te lamb ji jeexagul waxoon na ko ñoom roofoo ñoom ñaar roofoo nanu a baa mi doon jéggi ko Modou Lo Baye Mandione nga koy xëcc. waaw Baye Mandione nga téye ci suuf Modou Lo téye ci suuf. Baye Mandione nga koy xëcc. Modou Lo Baye Mandione ñu ngi nange ñante. mais Gandiane ku ku Baye Mandione da am na doole. waaw da ko door mu tërëf. ndax dëgg-dëgg ku fu mu dal bu tërëf amee boobu ku dëgg-dëgg ah ah Lo Baye Mandione. ñoom ñaar jàppante si. attention fiti bi. ñoom ñaar ñu ngi ci de. Baye ragal ñu fiti kenn ca xamal morom bi. Baye Mandione ngi door de Alaaji Gandiane. Baye Mandione xamal ko bu njëkk a sëgg rek dégg soo moytu nga am dëgg dëgg di nga di nga am way wax ne doo xam ne doo xam. attention attention Modou Lo ngay puus. et eh, ñoom ñaar ku njëkk a sëgg. Modou Lo ngay puus. waaw Modou Lo ngay puus waaw puus daa mel ni ko bëgg a génnee géew bi. waaw Modou Lo ngi puus de. waaye ñu waaye ñu doon rek. alaaji gañ gaañ lamb boo ci jekkul da ngay wut fenn. kaay ma wax la benn affaire de. waaw ah, position bi Mbaye Mandione téye woon na ko ak Coly Faye waaw na Mbaye Mandione na xelam doom ci ba mu jàppante Coly Faye nii waaw ah, wóorul waaw position bi jàpp na Coly Faye te topp dóor yi ba ñu taxabal la mais Alaaji Gañ Jaañ dafa mel ne mu ma dunoo daal fu mu bëgg a féete waaw mi ngi bëgg a dox mi ngi dox ak moom mi ngi dox ak Mbaye Mandione hey mu ma dunoo Mbaye Mandione la mu bëgg a bëre nag laa xamagul waaye ma ngay dox ak Mbaye Mandione ñi ngay téye ñoom ñaar ñaar ci nekk liggéey ñaar hey tek tek ku ne tek tek wan la yoon waaye bàyyi ma ñëw na ko yow Pacho bàyyi ma ñëw na ko dóor coob du minoo yow ah, waaw ah, Pacho mot la def la caxabal ba ah, waxuma la ci waat na ko ndeysaan garmi ne woon daal la caxabal ba caxabal bi wóorul waaye bàyyi ma ñëw na koy dóor bàyyi ma ñëw di fiti bu koy rof caxabal bàyyi ma ñëw na ngi feese rek mi koy feese bàyyi ma ñëw na ngay dóor mot na fiti mot na ko nekk ndeysaan Amadou Mohamed Ndiaye ma Abdoulaye Diop xamul lii doy na waar ndeysaan gisuma maître voilà ñuy nuyu ñëpp ñuy seetaan fan xam naa ni fi ñu toll nii gars yi see kontaan nañu nee naa ni fii ba gannaaw suba bu ñu doon teg spécial Baye Mandione duñ fi jógee Pape Gueye euh, di euh, client maam Diarra Fashion ca Jawaar ca Waalo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax euh, Ndione combat bi ku daan. waaw damay sant yàlla bu baax rek vraiment di wax ni Modou Lo maag moom ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi dëgg la parce que sportif la man may sportif dëgg la te day combat boo xamante ni wax dëgg yàlla combat mën naa wax ni combat du ko daax déedéet hmm. xam nga te yàlla dogal na fi mu toll nii def na ay preuve am tey ba yàlla may ko mu nekk roi des arènes mag kay nangu lu baax a baax ko ñaar yàlla sama borom bu njëkka hmm. ndax ñun bëri damay sutul ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi ay ay adversaire am pour ay quelques minutes rek waaye bu jeexee jeex na hmm. combat bi nag ni mu demee nii ku ne gis na ko vraiment yàlla dogal na bëri nañ ci biir bëri bi mu way mu daw di ma plaqué ma suruxal ko mu def kadapi après ma siggar bi attawul ñu mu continuer après mu daan ma yaa ngi dégg te ñaari victoire la ci benn combat bi xam nga. mais d' accord nga ni Modou Lo daan na la. dégg la si biir lamb gi daanu ma ndax ñaari victoire man tam ci combat man ta nekk. mooy mooy moo tax ma laaj. question bu simple. dama lay laaj yow ak yow Mamadou Lamine. karaat wala amul waaw non maa ngi ñëw dañuy waxtaan. <laughs> xam nga man ci place euh, laajkat. dëgg la dëgg la laaj. loolu ah. mënu ne dama la ne. Ah. sa combat yaa ngi Modou Lo daan. Modou Lo maa ko daan. yaa ko daanu ma. Moustapha Gueye. Ah. noo gisee combat bi. combat bi nekkoon na combat bu bari woon tension. Mm-hmm. ñu tolloon nekkoon ay nattangoo ci làmb di moo tax combat bi metti nekk aussi combat bu neex bu bari woon coow tam. mais man dafa am lenn lu mu xaw a jaaxal ci Baye Mandione sànq dama ko gis mu bëri ak euh, Moussa Dioum. bëree tànku loxo ndajoor. mu gis ku ñu bëri Modou Lo indi càmmoñ xool. moom Moussa Dioum tànku ndajoor lu indi. donc yooyu itam ay aspect la yoo xamante ne li ñu war a xam ci mbër yi la. bàyyi ma joon day bëree ñaari tànk wala day xool euh, ah da ngay bëree ñaar xeexe bii di bëree bii wala ngay bëree bii di ah. xeexe bii. Uh-huh. bu ci nekk mën nga ci taxaw bëree ci bu ci nekk mën nga ci taxaw xeex. mën naa ci taxaw xeex mën naa cee bëree. loolu ñaare dafa ci ñaare day mbot ñaare dafa ci mbot ñaare. loolu mooy polyvalence. Ah. waaw waaye waaye Lamine nag comme que euh, euh, Baye Mandione dafa rafetal. li li li Modou Lo doon. bëggoon fàtte démb. Ah, ah, waaye taxaw teewul rek mu taxaw ne moom moo daanoon. Ah, waaye kenn lañ jox victoire. kon day mel ni rek. dañu war a bàyyi waxam ji jekk rek. ñu na ci leneen. non loolu la non boobu kañ moom vraiment. may wax ni moom ci boppam. njoon ci boppam moo ma yóbbu Ardo man. non c'est vrai ah njoon moo ma yóbbu njoon aussi am na ci ay foto yoo xamante ne dañuy wone Ama Dione nekk ci kaw Modou Lo Modou Lo def uh-huh. ay foto t-shirt yi mu defoon sax moom la uh-huh. am journaux aussi ko wane woon uh-huh. donc combat bari na coow waaye dañu mën a jàpp rek ne ci bis boobu Modou Lo moo ñu boole am la këram moom lañ ko jox te ba moom lañ homologué waaye en tant que acteur nag doon bëre na moo daan ah, mu ngi taxaw ba ba dam souvent loolu loolu maanaam li yàgg na ci làmb ndax làmb yaa ko wax léegi ngay daan wala ñu daan wala nga match nul Euh, diggante Papa Sow ak Modou Lo kadap bi ba Modou Lo daan Papa Sow moo gën a gaaw bi mm-hmm. du diggante Tonnerre am na combat Tonnerre ak Papa Sow bëroon na ñoom ñaar biir combat bi am na kaata bi fa am mm-hmm. ba yaa ngi naan sax mm-hmm. euh, bu na day mel comme bële ñun waa Fass nañ ci taxaw mais loolu passé na quoi làmb la woon maa ngi Modou Lo jeex na jeex na xam nga te vraiment fan yi maa ngi seetaan bi wax dëgg yàlla mu am doom tuddee ko Seyna Mohamed doom ci laa bokk ba tuddee Seyna Mohamed doom après Balla Gaye yàlla dogal sonaam am doom mu tuddee ko Mohamed moom tamit hmm. Modou Lo am doom mu tuddee ko Seyna Mohamed xale hmm. boobu yàlla na ko yàlla sama borom defal wér mu dem ba tey li li waajur di séntu si doom yàlla na ko yàlla sama borom defal si doom Modou Lo nag champion la quoi vraiment maa koy ziar bu baax ndax carrière daf ko mhm. ñëfe wax dëgg yàlla mhm. xam nga dama ne sax man du ma waxati ci affaire ndax dafa benn kilifa boo xamante nañ ko bokk maag moom muy Tayru Sarr mhm. waaw dañoo bokk Tayru Sarr maag moom wax dëgg yàlla te Tayru mooy sama bapp euh, nii la mel ah mm. bàyyi ma ñëw nii la mel sérieusement nii la mel il boo ko gisee ak xëdëram noonu hmm. xoolal xol